bokk na ci point yi ci topp wàllu inondation ak wàllu déchet maanaam mbalit ak wàllu habitat wàllu location li lépp Pastef bind na ci lu mucc ayib waxtaan ceeg borom xam-xam yi nga xam ne ñoo ko xam nee nañ wàllu inondation fépp lañ wax fépp ci réewu Sénégal dinañ fexe ba inondation bi ñu xeex ak moom ba mu jóge fi moo xam ca Dakar la moo xam ca Ndar la moo xam ca Touba la moo xam Kaolack la moo xam fu mën a doon inondation boobu noonu ñoom jël nañ ko baax a baax au sérieux wàllu habitat tamit wàllu location tamit indi nañ ci lu mucc ayib kuréel yi nga xam ne ñooy ñoo ñoo ñooy yëngu fii ci wàllu location buñ ñëwee dinañ lëkkaloo ak ñoom lu mel ne kii SICAP lu mel ne SN HLM ak yeneen kuréel yi nga xam ne ci wàllu habitat la ñuy yëngu ñoom buñ ñëwee en tant que état dinañ lëkkaloo ak kuréel yooyu ba mën a jox sénégalais yi ñaari façon location yu yomb benn bi mooy ñu lay luye kër goo xam ne da ngay fay par weer wala ngay fay par at boo fayee ba mu yàgg ba li nga war a fay lépp mat yaa koy moom loolu benn façon la beneen bi mooy ñu lay ñu lay luyee ci njëg yomb nga xam ne dangay ngay dëkk rek saa yoo bëggee génn nga génn loolu dinañ lëkkaloo ak kuréel yooyu tabax ay cité tabax ay aslem ngir yombalal askanu Sénégal yépp ñu am fu ñu dëkk ak ak dëkk boobu man di bëgg a dëkk moo xam muy dakaar moo xam muy Thiès moo xam muy fu mën a doon bu ko defee nag bu boobaa ñi nga xam ne ñoo doon luyee seen ay kër ñoom ñoom dinañ obligé wàññi njëg gi wala boobaa sax état moom moo koy régulariser boppam kon état du fekk ko tabax këram ba pare xamul lu mu ko tabaxee mu ñëw naan ko da ngay wàññi waaye ñoom teg nañ politique boo xam ne bu ñëwee loolu dina mën a wàññeeku ndax dañuy tabax ay cité ak ay HLM yoo xam ne dañ ciy lëkkaloog entreprise yu mag yooyu nga xam ne ñoo ko daan def euh, état jàppale leen subventionné leen dimbale leen ñu man koo tabax ci njëg gu yomb ci wàllu feer ak euh, ciment ak la aju lépp bu ko defee ñu mën ko luyee askanu Sénégal wi ko soxla ci njëg gu yomb ba pare nag askanu Sénégal mooy seen priorité loolu fàtte naa ko wax ba may toll ci joxe ay travaux ay marché public loolu lépp ci la bokk toujours ñoom Sénégalais bi mooy seen priorité mooy seen ñoom ay nationaliste lañ donte ay africaniste lañ waaye sénégal bi mooy seen priorité ci lépp kon wàllu habitat boobu bu ñëwee sénégalais dañ ci gis seen bopp wàllu déchet tamit euh, jalu mbalit bu rëy boobu nekk ca mbëbës muy gox boo xam ne dañ fay dajale mbalit ak wàllu mbalit loolu lépp ñoom bàyyi nañ ci xel nee nañ mbëbës du loo xam ne dañ ko war a déplacer ndax déplacer mbëbës mooy déplacer problème mbëbës mooy fi nga xam ne daanaka euh, mbalitu Dakar yëpp fa lañ koy tuur léegi nag ñoom jël nañ ci ay matuwaay bu ñëwee dinañ ko ubbi mu nekk genre liggéeyukaay boo xam ne au lieu que mu nekk mbalit day mujj doon sax euh, loo xam ne dañ ciy profité avantage mu doon loo xam ne mën nañ cee liggéey lu mel ne courant wala ñu xool luñ ci mën a liggéey rek ñu liggéey ko ci au lieu que muy nekk foofu rek nekk mbalit mu jëmul fenn wala ñu koy jéem a déplacé environnement nekk na lu leen ñor wàllu climat bi wàllu njëmbat garab sàmm climat bi nga xam ne sénégal yi daanaka àttanatuñ ko ngelaw yi tàngoor wi taw yu manqué yi loolu lépp bàyyi nañ ci xel te am nañ ci ay solution yoo xam ne bu leen yàlla jàppalee askan wi dinañ ko gis euh, li nga xam ne mooy internet tamit seetlu nañ ne cher na lool ci Sénégal waaye tamit bari na bërëb yoo xam ne boo fa nekkee ci réew mi di nga am problème mu réseau rawatina problème mu internet nee nañ nag loolu bëgg nañ mu jeex takk ci réew mi bëgg nañ fépp fa sénégalais nekkate ci biir Sénégal nga am internet bu mucc ayib internet xam nga internet moom ko ko am rek woote wuyu moom waxi nopp waaye nag bu boobaa tamit mu nekk ci njëg goo xam ne gu abordable lay doon boo xam ne sénégalais yëpp seen poche dina ko mën a jot incha allah. ba tey ci wàllu njàng meeg njàngale mi handicapé yi tamit bàyyiwuñ leen bàyyiwuñ leen ginnaaw bàyyi nañ leen xel bu baax a baax a baax ci ni ñuy tabaxee école yi ak wutal leen ay programme yoo xam ne ñoom ñëpp dinañ ci mën a jànge ak façon handicap buñ mën di am waaye tamit euh, li nga xam ne mooy formation ci université yi ba tey ci wàllu mbay mbay mi nga xam ne moo gën a ñor waa PASTEF ndax seen base économique seen base ci wàllu koom seen koom daal fi mu sukkandiku mooy wàllu mbay Ousmane Sonko ci programme bi nga xam ne mooy programme PASTEF projet bi fas nañ ci yéene taxawal juróom-ñetti pôle économique nga xam ne dañuy séddale Sénégal ci juróom-ñetti gox gox bu nekk ñu sam fa pôle économique pôle économique buñ ko waxee mooy rek benn benn benn bërëb bu yaatu bu ngande boo xam ne ci wàllu économie ci wàllu koom rek lay dox lépp loo soxla ci wàllu koom da nga ko fay fekk moo xam looy defarlu lu ñuy produire wala service boo soxla wala looy jaay wala loo bëgg jënd lépp da nga ko fay soxla léegi nag Sénégal dañ ko séddale ci juróom-ñetti bërëb bërëb bu nekk lañ gën a ràññee ko ñu jox leen loolu xam nga waa Fuuta am na luñ luñ am loo xam ne waa Saalum amuñ ko waa Fuuta ak waa Saalum am na luñ am loo xam ne waa Bawol amuñ ko waalo noonu Casamance noonu Bund noonu noonu lañ ko séddalee juróom-ñetti pôle benn bi mooy région Fatick euh, ak ak ak ak Kaolack ak Kaffrine muy Sine Saalum loolu benn pôle la. région Diourbel Bambey Mbacké Diourbel ak li ko war Touba loolu benn pool la boo demee Waalo euh, Ndar ak li ko wër ba Dagana ak euh, Richard Toll ak Ross Béthio loolu benn pool la <clears throat> boo demee Casamance nga jël région Ziguinchor région Sédhiou loolu benn pool la boo demee Bundu euh, Tambacounda jàpp Kédougou loolu benn pool la. boo demee Fuuta maatam jàpp luga loolu benn pôle la noonu lañ koy toppee ba Sénégal jeex Dakar tamit naka noonu nekk pôlu boppam nga xam ne dañuy jël ay pôle économique jël benn bërëb bu yaatu taxawal fa économie boo xam ne lépp lu waa gox boobu soxla ci wàllu liggéey walla ci wàllu produit yu boo mën di soxla boo demee danga nga ko fay fekk looy defaloo da nga ko fa mën a defaree looy jaay looy jënd looy demander pour ñu defal la ko service da nga koy da nga ko fay fekk <clears throat> bokk na ci liñ bëgg ñoom ba tey ci wàllu dimbale baykat yi mooy dekalaat dekalaat dex yi nga xam ne ñoo nekkoon ci senegal dex yi nga xam ne ñoo nekkoon ci senegal ak dex dexaan yu ndaw yi lu lépp bëggoon nañ koo dekkal euh, loolu am na yu nekk waalo am yu ne am na yu nekk bawal am na ñu nekk siin fleuve du Sénégal Euh, yooyu yëpp daal dex dex dex yeeg dex dexaan yi lu mel ne Lac de lu mel ne Lac Rose yooyu yëpp bëgg nañ koo dekkalaat ngir Sénégal gën a am ndox baykat yi man di bay ci ndox moomu lépp loo xam ne soxla nañ ko loolu lépp ngir taxaw baykat yi ak gunge leen. wàllu transport tamit bàyyi nañ ko xel muy réseau euh, routier ferroviaire maritime euh, aérien loolu lépp bàyyi nañ ko xel. Euh, oto yi nga xam ne ñooy jaar ci suuf si loolu sax nee nañ mooy mooy gën a nekk seen priorité ñoo ci bàyyi xel ñett bàyyi xel qualité yoon wi nga xam ne ci la oto bi jaar bàyyi xel yan façon oto ñoo war a daw ci Sénégal ak bàyyi xel nit ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci secteur boobu leen lu nekk la ca war bu soobee yàlla dinañ ko def ndax nee nañ sax wàllu transport ñoom loolu moo leen ci gën a ñor ndax accident yi fi mu gën a bare mooy ci euh, routière bi maanaam oto yi kon loolu secteur la bu leen ñor ci ñetti bànqaasam yooyu dinañ ci indi ay coppite yu wér muy yoon wi ñuy jaar tali ci boppam qualité bi oto yi daw ci oto ci ci tali yi ak askan wi nga xam ne ñooy dugg ci oto yooyu ñii di ko dawal ñii di ci dugg loolu lépp dinañ ci indi euh, ay coppite yoo xam ne bu soobee yàlla dina jural njariñ réew mi euh, saxaar si naka noonu saxaar gi wàllu euh, transport dem ak dikk ci wàllu géej gi tamit dinañ ko dundalaat baax a baax ci diggante euh, Sénégal euh, ci diggante Dakar ak euh, Ziguinchor ak diggante Dakar ak Foundiougne loolu lépp am nañ ci ay projet yu mucc ayib damay tënk rek gars yi damay tënk rek wàllu aéroport tamit maanaam wàllu aérien transport ci wàllu avion yeeg dem ak dikk ci wàllu jaww ji loolu lépp am nañ ci programme bu mucc ayib ñoom waa PASTEF ñu ñëw ci sécurité bëgg nañ tabax ay commissariat ak ay brigade Euh, ci bépp arrondissement ci Sénégal bépp arrondissement rek xam nga région bi day am ay arrondissement bëgg nañ yokk commissariat yi ak brigade yi ñu mat sëkk yokk limub takk der yi euh, ba pare ñuy liggéey ci loo xam ne moo amal njëriñ askanu Sénégal bi mujjee mooy tourisme ak culture ak sport hmm, yooyu yëpp tamit euh, Pastef ñëw nañ ci bàyyiwuñ dara ndax yu mujj yooyu sax nee nañ ñoom rawatina lii di artisanat ak esport ak tourisme ak culture yooyu dafa nekk ay levée diplomatique maanaam dafa nekk loo xam ne dafay représenté sa réew ci bitim réew damay tënk rek yi yëpp ñoom indi nañ ci indi nañ ci ay ay ay ay ay ay programme yu am solo kon nee nañ ñoom ñett yooyu koy jàppee ay vitrine diplomatique maanaam mooy représenté sa réew ci bitim réew mooy représenté Sénégal moo xam muy artiste bi dem bitim réew wala sportif bi wala artis euh, artisanat bi wala ki nga xam ne dafa ñëw ci réew mi di def tourisme loolu moo tax ñoom dinañ gunge <coughs> euh, acteur culturels yi ci fonds fonds yoo xam ne dañ leen koy dimbale yo xam ne dañ koy jox artistes yi ak euh, sokali secteur boobu ñu nekk bu dee ci wàllu artisanat ñoom tamit dinañ leen dimbale ci benn fonds d'appui boo xam ne cinq milliards lay doon par at juróomi at yi ñu fas yéene nekk fii ak mille vingt neuf at mu jot dinañ dugal cinq milliards mu nekk loo xam ne dañ koy dimbale artisanat yi euh, ndax ñoom waa Pastef dañoo dañoo favoriser consommer local lépp loo xam ne sénégalais mi ngi koy liggéey ñoom loolu moo leen gënal lu ñuy jënd bitim réew nga xam ne mënoon nañoo dem mënoon nañoo dem ba sunu gouvernement. li muy soxla lépp ci matériel ay sénégalais ñoo koy liggéeyal moo xam ci wàllu menuiserie la moo xam ci wàllu li ñuy sol la seen costume yi ñuy sol moo xam ci wàllu meuble yi lépp loo xam ne daal sénégalais mën na koo liggéey rek ñoom état bu Sénégal favoriser ñu jënde ko Sénégal pour suqali suñuy artisan euh, moo leen gënal ñu koy jënde bitim réew kon loolu mooy consommer local bokk na ci programme Pastef tamit loolu lay tëjee daanaka mooy ñoom dañuy aaye cumul de fonction cumul de mandat lépp loo xam ne askanu Sénégal ñoo la ciy fal daal buñ la ca xasee fal dootoo amaat ganeen ndomba tànk comme ça nga nekk directeur nekk ministre wala nga nekk ministre nekk euh, nekk député nekk maire wala yu demee noonu xeeti cumul de mandat yooyu cumul de fonction yooyu dañ ko fi jëlee xam na wax ja xaw naa jaxasoo <laughs> ñu ngi ciy jégg lu baax a baax a baax. programme bi moom yaatu na lool yaatu na lool man maa doon jéem a tënk nii rek waaye xam naa ne li ma bàyyi moo ëpp li indi mbokk yi askanu Sénégal daal yaakaar naa ñi ku leen fal doo ko bu soobee yàlla ndax programme bi li ci gën a neex mooy président bii nga xam ne ma euh, candidat bii nga xam ne moom lañ bëgg a mooy muy Bassirou Diomaye moom moo jiite woon liggéey bi liggéey bii nga xam ne liggéey nañ ci ñeenti at jàpp euh, ñetti at jàpp ñeent lu mat junni boroom xam-xam ak ñeenti téeméer euh, participer 360 experts ki leen jiite woon ñoom ñëpp mooy Bassirou Diomaye Faye mii nga xam ne mooy candidat bi maanaam liggéey bi moom moo ko jiite woon bi ñuy moom moo ko jiite woon moom mi nga xam ne mooy secrétaire général du parti kon nag loolu ay sens yu tombe la maanaam li ñuy wax tawfiq mooy loolu rawatina coalition bi ay homme de qualité nekk ci biir ay homme de qualité ay borom xam-xam ay expert ñoom ay nit ñu jub ay nit ñu jub ñu mel ne ñoom marito ñaan ñu mel ne ñoom Cheikh Bamba Dieye ñu mel ne ñoom Moustapha Guirassy Aïda Mbodj Soxna Aminata Touré ay Cheikh Omar Diagne ñu mel ne ñoom Charles Emile Ciss ay ay ay homme de qualité ñoo nekk ci biir ñoo wër Ousmane Sonko ay borom xam-xam ay kàngam ay nit ñu maandu ñii daal ak programme bii ak équipe bii bu ñu amee sensu teg ñii ci suñ bopp réew wallahi bu boobaa bu soobee yàlla dina baax bu soobee dina baax de ñii daal nañ fexe ba bu ñu rëcc képp koo xam ne mën nga leen voteel votel leen bul ci yam nga fexe ba soññi yeneen nit tamit ñu voteel leen loolu mooy voter et faire voter yow nga voter ba pare fexeel ñeneen tamit voteel leen moo xam sa jabar la moo xam sa jëkkër la moo xam ki nga bokkal kër la ki nga bokkal koñ ki nga bokkal fu ngeen di liggéeyee ñi ngay dégganteel ci réseaux sociaux yi koo ci mën a dugal rek ngir mu voteel programme bii ak équipe bi defal loolu yaakaar naa duñ ko réccu bu soobee yàlla yaan yàlla def tawfiq asalaamaaleykum wa rahmatullah